mbokk yi gannaaw bañ leen nuyoo tënkum xibaar yi dañ koy euh, dooreek euh, faat euh, bakkan ak njuuba sekk mi nga xam ne nag ay atam war na yegg ci ñaar fukki at ak juróom benn moom nag ñu ngi ko faatee ca Pikine ginnaaw raay arrêt Sips moom nag niki barki démb ci guddi lañ ko daal di faat niki démb ci suba ñu daal di koy fekk foofee ca arrêt Sips mu daal di sango deret sunu sukkandikoo ci ay kàddu nag nag ay jam-jam yu bari euh, lañ ko daal di def euh, ba ma waral sax mu daal di ñàkk bakkanam waaye nag euh, kenn sàkku ko kenn it agressé wu ko ndax fekk nañu ci moom téléphone portable am ak ñaari junni yi nga xam ne moom la yoroon ci posetam sunu sukkandikoo nag ci ay kàddu yi way juróom bu jigéen moom Njóoba Sekk nag da ko tàggu woon ci guddi gi ne ko mu ngi génn waaye mu ngi ñëwaat léegi ci noonee ci fajar gi rek ñu daal di leen woo euh, tàgge leen euh, seen euh, doom sunu sukkandikoo ci ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy njaboot ji ñu ngay sàkku rek yoon daal di dox doxal liggéeyam ba ñu xam ana moo faat seen doom boobule euh, ñu dem euh, ca Bignona desandi ba tey ci mbirub euh, ñaawteef yooyu benn góor bu amee juróom-ñaar fukki at moomee la doomam bu góor daal di faat moom nag da ko daal di jàmm yamul foofu rek waaye ki nga xam ne jarbaat la ci way juróom góor yi tamit da ko daal di jam ay paaka yu ay paaka ay jamati yu baree bari ba moom moomee sax jamono ji mu ngi l'hôpital ci ab état bu critique maanaam ci diggante dund de dee suñu sukkandikoo nag ca ñi nga xam ne eh, ñoom ñoo fekkee mbir ma ki nga xam ne nag moom moo def eh, ñaawteef yu ni mel eh, jamono ji dafa daal di ne may kenn gisu ko waaye it dafa doon jëfandikoo sineebar ba tàggalikook sago moom moo waral mu daal di def ñaawteef yi jamono yi papam nag ñuy xamle ne dafa dal di ñàkk bakkanam ñu wax ci mbirub faux euh, billet ak euh, Bougazelli moom nag euh, doyen des juges daal di nay ubbi dossier ma woo nag gendarme yi ci ab bataaxal bi nga xam ne euh, jébbal na leen ko mu ngay xam leen nag euh, boobu lépp euh, l'enquête nañ ko wéyandil ba xam nag fan la dëgg bi féete ci mbirub faux billet boobu moom Bougazelli gannaaw bañ ko tegee mandat de dépôt ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub novembre ba néega ni mu ngi ca kasop bu rëbës ñu wax euh, ci mbirub maam euh, maxtar Gueye mi nga xam ne nag ay kàddoo ngi jip euh, ñu koy wax ne dafa doon séddale ay préservatif jëmale ko ci wàllub xeex sida moom Mame maxtar Gueye nag mu ngi ñaawlu yile kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko teg ko ci ndoddam ngir yàq deram te it mu ngay xamle sax ne bu xamee ñi nga xam ne ñoom ñoo wax lii la dal ràngu dana leen dal ndax dana jébbal ab plainte ci kanamu yoon ngir mën leeral loolu mu ngay xamle loolee nag lii nga xam ne yëkkati nañ ko euh, furaas euh, dara amu ci te it euh, mu ngay artu ñi nga xam ne ñu ngi koy wax ne dina leen yóbbu ca kanamu yoon. na wax ci wàllub euh, miis euh, Sénégal ak euh, Aminata Badiane mi nga xam ne nag moom mooy organisatrice bi moom mi lee nag mu ngay naqarlu bu baax critique yi nga xam ne yëkkati nañ ko teg ko ci ndoddu ki nga xam ne moom la ñu tabb Miss Sénégal ay kàddu di jib ci réseau sociaux yi ni miis bu ñu tabb ren ngir mu yëkkat ngir mu représenté senegal dafa ñaaw kàddu yooye nag moom Aminata Badiane mu ngi koy naqarlu tey woo ñi nga xam ne ñoom ñooy def lu ni mel ñu bàyyi kàddu yooyee te jublu ci liggéey bi mbaa ñu ñëw fekki ko ci liggéey bi mu nekk ngir jàppale ko si. ñu dem euh, ba gàmbi foofee sax lañuy jeexale tënkub xibaar yi ak euh, mouvement trieur jot na ñoom nag euh, jamono yi niki dimanche bi dañoo wàccoon na ci mbedd yi ngir sàkku ci aadama Barrow mu daal di dem ndax moom moo waxoon ni gannaaw ñetti at dana daal di def ab transition maanaam dana jibbal nguur gi eh, keneen defaat yeneen i élection loolee nag moom moo waraloon askan wa wàcce ca mbedd ma ngir eh, sàkku mu sàmmonteeg ak ay eh, kàddoom sunu sukkandikoo ci ay kàddu nag fipp googee ñi ko waral di waa King FM bu Gàmbi ñoom ñooñee nag jàpp nañu seen directeur ak ñeent ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ci boobee rajo sunu sukkandikoo ci beneen këru tasukat këru tasukaay xibaar bu bay bàyyeekoo euh, foofee ca euh, Gambie mbokk yi lii lañ leen indiloon ci ay xibaar ci tënk di leen jox dig daje ba beneen jaa ngeen jëf.